de ay taalibe rek lanu waaw te taalibe rek la ñuy ay cantaakoon lanu te sëñ Bacu ci taalibe lanu woo moom euh, doom yaa ngi ci euh, mbokku taalibe yi tamit li sëñ bi waxoon xam nañ ko dégg nañ ko Madinatu Salaam la waxoon à la dernière minute indi nañ ndigal lu yees wax ko duñ ci mën a sore waaye daal ñun leer nañu daal fa mu ne fu mu mënti ne mi ngi waaw leer nañu fu mu waaw ñun sëñ Bacu rek la ñuy la la ñuy gëm te mi ngi suñu biir te dëgg yàlla yàgg nañu koy juñu saa su ne mi ñu koy juñu que ni euh, jëmm ji day dem waaye Serigne Saliou li mu ko waxoon waaw euh, jëmm ji rek mooy dem waaye mbir yi day des waaw. vidéo yaa ngi fi lu mu wax la waaye ñun ñëpp dégg nañ déclaration yi doom yi def soxna si tamit bi mu ñu booleel muy soxna Aida dégg nañ tamit daf na déclaration wax na tamit du ñu def lu dul nangu noonu. waaw moom daal fu mu ko mënti denc muy Touba ndax sëñ Saal dafa ni ko suufu Touba ak suufu Madina Salaam benn la loolu la ko kon loolu nangu nañ ko te wax dëgg yàlla ay taalibe nu du ñu dugg waaye ñun leer nañu daal ñun leer nañu ni jógu fi waaw leer nañu mi ngi sunu xol leer nañu fépp fu mu mënti ne tuuba la ci moom. te sëñ Saal dafa ni ko nee sa taalibe yi nanu fonk màggal gi nan fonk ma 17 euh, avril bi nan fonk gàmmu gi nan fonk xasaat sëñ Touba yi. loolu la ko Serigne Saliou mujjee wax foofu la ñuy tàggu 17 avril bi weesu na dogal yi am na daan ko def li mu waree wéyale màggalu seen Touba moom nag tegtal nañu ko wax nañu fan lañ jëm ak fan lañ koy def noonu lañ koy defee li mu wax lépp leer nañu am taalibe teew ci daara yi di doxal sëriñ bi di ñëw di siyaare si fonk màggal gi fonk gàmm gi xas de seen Touba yi 17 avril te foofu rek la ñuy tegu yéen dem na nag wéetal nañu parce que sëriñ Touba ndax gi. seigne badjo do ñew mukk fekk fi ñu la xaaral ngay tok ay 2 heures de temps fo ñew dina ubil fekk ubil la nga siar ko jox ko adiya tak jangal nanu deug la min gi lañuy joy waye jangal nanu